benn tesalonik saar waaw mbokk yi xam ngeen ne ngan gi nu leen ganesi woon du nganug neen laata nuy ñëw jaar nañu ci fitna ak toroxte ca dëkku filip ni ngeen ko xame waaye yàlla sunu boroom may nanu fit bali li tongonte bi metti lépp it yégal nanu leen xabaaru yàlla bu baax bi ndaxte sunu waaraate wéeruwul cig réer walla ci njublan walla ciy nax waaye ginnaaw yàlla moonu seet ba wóolu te dénk xabaar bu baax bi kon noonu lanuy waaree du ngir neex nit ñi waaye ngir neex yàlla miy seet xol yi musunoo jay kenn yéen xam ngeen ko sunu waare musula ëmb bëgge yàlla seede na ko mësunoo sàkku ngërëmu nit muy ci yéen muy ci ñeneen mën nanoo di ci seen kaw sax nun ñi ndawi kirist waaye woyofoon nanu ci seen biir te lewet ni jaboot buy wuuf doomam cofeel gi nu am ci yéen tax na bëggunu woon a yem ci xamal leen xabaaru yàlla bu baax bi waaye jox leen it sunu bakkan ndaxte sunu xol seeyoon na ci yéen mbokk yi yéen a ngi fàttaliku sunu coono ak sunu ñaq xam ngeen ni nu liggéeye guddi ak bëccëg ngir bañ a diis ci seen kaw ci di leen yëgal xabaaru yàlla naka suñu diggante ak yéen ñi gëm doxal nañu ko doxalin wu sell te jub te amul sikk seede ngeen ko te yàlla it seede na ko xam ngeen ne dénk nanu leen kenn kenn ni baay di def ak doomam dëfalal leen seen xool te dëggal ci yéen ngeen dund dund gu neex yàlla moom mi leen di woo ngeen seddu ci nguuram ak ndamam te it duñu noppe sant yàlla ci lii ba ngeen jotee kàddug yàlla gi ñu doon waare nangu ngeen ko waxuma ni kàddug nit waaye ni kàddug yàlla ndaxte moom la ci dëgg-dëgg te mi ngi jëf ci yéen ñi gëm ndaxte mbokk yi am ngeen ci tànki mboolooy yàlla yi nekk ci réewu yawut ya te daje ci turu kirist yeesu fitna ya ñu daj ca yawut ya yéen it seen waa réew teg nañu leen ko ñoom yawut yi rey nañu boroom bi yéesu ni ñu reye woon yonent yi teg nañu nu fitna yu metti neexuñu yàlla ànduñu ak kenn di ñu teree wax ak ñi dul yewuut ngir bañ ñu mucc duñu noppee xuus ci biir bàkkaar waaye merum yàlla xëppu na ci seen kaw nun nag mbokk yi ba ñu ma leen a xañee ab diir xol yi taxul may wax waaye jëmm yi rekk jéem nanu leen a gis ak sunu kem kàttan ndax namm nañu leen ba sunu xool seey ci gis leen kon jàppoon nañu leen a seet si man pool sax ay yooni yoon waaye seytaane teq na ma ndaxte bés bu yeesu sunu boroom dellusee te nu fekke ko kan mooy sunu yaakaar kan mooy suñu mbég kan mooy suñu kaala gi nuy tiitaroo xanaa du yéen waaw yéene suñu ndam yéene suñu mbég